jox jur ci askanu Sénégal ndax gis nañ démb déjà li xawoon a am ci diggante ay xale ak mhm. ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der yi mais lan la yoon may aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy layoon Ousmane Sonko est-ce que am na lu leen yoon may lu tax dinañ mën a defendre euh, seen euh, ki nga xam ne moom moo di seen client mhm. ba mën koo génnee tey jii ci li nga xam ne moom la ñëpp di xalaat waaw gis nga fi ñu toll nii mhm. Ousmane Sonko am na ci ay droit yoo xamante ne yoon may na ko ci xam nga démb ñëwul woon ci procès te jarul mm. woon sax moo fay dem parce que affaire nouvelle moom jarul sax nga fay traîner. Mm-hmm. il faut juge bi jot retour de citation bi wane ne ñëw nga. Mm-hmm. bu ñu demee demee demee dem ba juge bi jàpp ne mooy dernier renvoi renvoi ultime. Mm-hmm. bu fekkente ne Ousmane Sonko bu ko neexee mu ñëw bu ko neexee mu bañ a ñëw. Mm. contrairement ak dossier sur bot bi nga xam ne ñàkk a ñëwam foofu c'est une procédure criminelle. foofu wàllum crime la mais bii c'est une procédure déli la bu ko neexee mën naa bañ a ñëw bu fekkente ni ñëwul ci jour àtte bi fii ci procès bi ak Mame lu ko ci xam nga ci jotaay yi passé expliqué woon naa bu ñëwul ci digganteem ak Sweet Beauté euh, lan moo ko ci mën a fekk mm-hmm. mais digganteem ak Mame Mbaye Niang bu mu ñëwul lan moo ko ci mën a fekk bu ñëwul dara du ko ci fekk mm. kenn du ko jëli kenn du ko forcé ne ko da ñëw par force mm-hmm. mais am na ay conséquences yoo xamante ne mën na ci découlé juge bi mën naa prononcer une peine ferme peine bi mën naa dem sax ba ànd ak mandat d'arrêt mais bu ñëwul ci procès bi ak Mame Mbaye Niang bu ñu demee ba verdict bi génn xam nga kon loolu mooy il sera jugé par défaut maanaam dañ laa àtte te nekkoo fa donc bokkul ak jugement par contumace par contumace mooy bu ñu lay toppee crime mais bu dee fii on parle pas de jugement par contumace on parle de jugement par défaut bu ñu koy àtte te ñëwul jugement par défaut la mm-hmm. bu loolu jàllee même ba verdict génn mm. kenn mënu koo teree tere mënuñ ci sukkandiku pour tere ko gàllankoor ko su boobaa day def ñu tuddee opposition parce que bu ñu la àttee te nekkoo fa waaw ba dogal mën na koo dem def appel directement pour ñu àtte ko da ngay def lu ñuy tuddee opposition mooy recours boo xam ne pour ñu àttewaat la ci sa teewaay hmm. bu defee opposition dañ koy àttewaat ci teewaayam mhm. léegi nag bu àtte boobu génnee nag ci la soog a def appel mhm. pour que ñu ñu ñu ñu àttewaat mbir mi en deuxième instant ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc moom mooy xool rek mhm. moo tax man ma jàpp ne date bi ñu ko renvoyé sax wóorul ñu dafa mën nañ def ba euh, ñëw boobu noonu gis te bu ma doon ñoom comme que combat politique la rek du ma leen ko yombal dama leen di bàyyi ñu àtte seen àtte ba pare mm. ma def opposition gën a tardel yëf yi gën a def opposition def opposition ñu mm-hmm. àttewaat ko ci sama teewaay mm-hmm. bu loolu génnee ma defaat appel bu bu ma fa amul li ma bëgg ma dem defaat li nga xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy pourvoi d'accord donc loolu yëpp ay possibilité la yoo bu ñu ñëwee ci procès bi tamit ay avocat am na ci lu bëri loo xam ne yoon may na leen ko yu bëri yoo xamante ni voilà mën mën nañu demander à que ñu jël en compte rapport IGF mm-hmm. maanaam ñu bloqué lii mm-hmm. ba justice euh, rapport bi dem xool ndax yiñ fa de manquement yi nga xamante ne rapport bi soulevé woon nag ndax loolu am na waawu leen ak yeneen ak yeneen mm-hmm. mën nañ sax soulever ay ay yenn yenn exception de nullité xam nga avocat yi ñoom dañoo xarañ ñoom loo xamante ne mën na sauver seen client rek donc bëri na bëri na li nga xam ne ay droit am la mais lii ma wax ni ay ah. droit la bu ko neexee jour bi ñu jàppee juge bi jàppee ne mm. renvoi yëpp jeex na jour bii lañ ko war a àtte mm-hmm. bu ko neexee mu tëdd këram bañ a ñëw toog di naan café d'accord bu ko neexee mu bañ déposé déposer benn këyit buy wane lu tax mu absenté loolu gis nañ ko fi ci ay procédure loolu yoon may na ko léegi nag bu defee loolu ba pare ba juge ba gars yi décidé ni non atte nañu condamné nañ ko nangam sangam sangam mu mm. ñëw leen waa léegi pare ngeen seen condamnation mm-hmm. damay def opposition bu defee opposition mooy atte bi ñu atte woon yëpp léegi nil na dañuy attewaat beneen atte ci teewaayam. d'accord buñ ko attewaatee ci teewaayam. Mhm. amu ci li bëgg ñu condamné ko ci. mën na mën na def def recours ne waa léegi man damay def appel. ñu kon attewaat ko une deuxième fois. ñu attewaat ko une deuxième fois amul li bëgg mu ne waa léegi man damay def pourvoi. Hmm. comme que yëf yi comme xeex politique la rek. ak guddeeg jël non waru leen ko yombalal. bien comme ñu ñëwoon nii rek démb rek premier procès rek mu ñëw rek taxaw Euh, ci dossier Sweet Beauty da nga doon wax tous les jours ne euh, mënuñu ko gaawal a gaawal ba fii ak 2024 ci élection yi ñu mën fee boucler euh, procès boobu. Mhm. ba mën ko fee àtte ba daan ko fi. effectivement mënuñu bu ñu dee ma daal ci wàllum droit mënuñu ko justice mais est-ce que ci bii nii mën nañ ko. ci digganteem ak Mame Mbaye bi. ci ci ci ndax dossier bi mooy gën a gaaw. waaw ci bii parce que. li sénégalais war a xam mooñ du premier acte rek la ñuy pour baser ci pour ne doo bokk ci élection il faut que la condamnation soit définitive maanaam il faut que ñu épuiser voie de recours yëpp parce que ñetti façon atte moo am bu ñu la njëkkee atte boo kontaanoo ci atte bi mën nga defaat sàkkwaat mhm. ñu attewaat ko ko deuxième fois kontaanoo ci atte bi mën nga sàkk ñu attewaat ko une troisième fois mhm. léegi mhm. bu ñu ko attee nii bu ñu ko condamné bu ñu ñëw ba ci datu renvoi bi ñu cour d'appel am na fa dossier yu tëdd di nelaw yu ñëwagul. yu jiitu bi. Mm-hmm. comme na moo amee ca Chambre kii xam nga Sénégal moom lenteur justice dafa am encombrement rôle yi. Mm-hmm. cour d'appel boo fa demee. Mm-hmm. la fa d'appel bu nekk ci ay dossiers yu nelaw kenn xamul nu mu toll. donc même bu ñu àtte woon ko euh, bu ñu condamné woon Ousmane Sonko ci procédure contre Mame bi Sonko def appel. bu ñëwee cour d'appel dossier bi mënagul ñëw léegi foog ñu toogaat xaaraat la nekk ci ay dossiers yu toog di xaar mayewu fi ñu mën fi programmer dossier bi ba attewaat ko appel ba ne sax dañuy ci sukkandiku pour tere Ousmane Sonko dem euh, candidat présidentiel mm-hmm. moo tax la ma ne waxoon ci Sweet Beauté loolu laay waxaat ci procédure bi contre Mame Mbaye Niang ñaari dossiers yi yëpp délai yi mm-hmm. ak yi fi toog di xaar mayewul ñu épuiser fi les voies de toutes les voies de recours ba condamné fi trop jugement rendre fi ay jugement définitif mm-hmm. ba dañ ciy sukkandiku pour écarter Ousmane Sonko mu nekk élection euh, candidat maanaam ñaari dossiers yi mënuñ cee sukkandiku pour xañ Ousmane Sonko ni ko da ngay dem nekk candidat xanaa ñu créé waat fi leneen lu bees ci diggante bi comme que ñoom duñu du ñu tàyyi mukk saa su nekk rek ñi ngi jéem a lal pexe boo xamante ni mhm. noonu la ñu noonu la kiiwee mhm. donc lii mooy li nga xam moom maintenant nag xam nga yaa ma gën a xam Sénégal la loi wax li mu wax yëpp mooy li loi wax ak jurisprudence ak dossier yu mel ni yi fi jotoon jaan naka lañ ko doxalee mais bu ñu dëppee mais gars yi bu ñu décidé jalgati moom xam nga kenn mënu leen dañ koy dëpp dañ koy dëpp mais lii daal mooy li nga xam ne moom moo fi am donc ñi nga xamante ne dañuy seen xel dañ naan si est ce que duñ ko fi condamné est ce xaj du fi kii di na seen xel dal hmm. cour d'appel la fa nekk ci ay dossier di nelaw moo ëpp sax xam nga maa ngi la cour d'appel lu sëy dafa nekk dina la moo ëpp yi nekk chambre criminelle. d'accord xaju fi. voilà donc fee la gën a yombee sax ñu accélérer dossiers yooyu ba ñëw juger sur beauté que bii nii même bu ñu premier atte moo tax gis nga bu ñu ko njëkkee jugé. Hmm. te foofu dama ciy dalal xelu sympathisant Ousmane Sonko yi. dossier contre Mame Mbaye Niang bi. Hmm. bu ngeen déggoon ñu ne condamné nañ Ousmane Sonko 10 ans sax bu mu leen teree nelaw. bu mu leen teree dem lekk seen cere naan ko 10 ans wala 20 du def effet. bu ñu ñëwoon la procès bi date bii nii ñu ko jàpp. ñu jugé ko ci suuf bi ne wéy condamné nañu Ousmane Sonko 10 ans ci procédure bi contre Mame Mbaye Niang. bu mu leen sax tere nelaw du am benn effet. mënu koo teree dem mënu koo te première condamnation mënu fi tere kenn dem. Hmm. il faut que condamnation bi définitive bu loolu amee. bu dee Ousmane Sonko teewoon na am na possibilité def appel pour que ñu saytuwaat mbir mi. Hmm. te appel bu defoon appel. dossier bi balaa muy ñëwaat cour d'appel la fa ko pour bu Sonko bi mën a ñëwaat. mais démb Pape ñu dundandoo ko il faut ñu génn tuuti justice bi dundandoo ko li mu demee am na ci ay euh, ñooñi Ousmane Sonko ñoo xam ne jot nañoo génn ñu leen di tere ñoom seen digganteeg takk der ñu xaw a sax laale. ndax mhm. sànni nañ ay xeer ñee yëkkati yëkkati ay euh, lacrymogène sànni est-ce que ñoom patience bi nga yaakaar dinañu ko am ci kaw ñu ne Ousmane Sonko une fois que condamné nañ ko dinañu toog am patience di xaaraat beneen beneen euh, procédure. waaw xam nga déjà man li may njëkk a rafetlu mooy euh, conditions yi nga xamante ne amoon na fa cest à man le fait que ñu encercler këram noonu noonu. Mm. ça ça me rappelle yenn dictature yi nga xamante ne dafa am ci yenn dëkk yi. dëkk bu ci mel ni Guinée à un moment donné gis nga mm-hmm. seen ancien président bi ni mu doon sonalee. Mm-hmm. l'opposant ki nga xamante ne moom mooy opposant bi seen opposant boobu noonu bu célèbre bi nga xamante ne rek saa yu gagné ñu sàcc ko. alors euh, muy Cellou Dalein Diallo donc spectacle boobu rek la ma offrir parce que gis ngeen à un moment donné ni ñuy barricadé woon këram mënul génn mënul dem fenn njabootam mënuñ génn ak yooyu noonu mm. cest à que puisque amul décision de justice bu astreindre Ousmane Sonko résidence surveillée xam nga Ousmane Sonko nekkul résidence surveillée mm-hmm. donc le fait que ñu ñëw barricadé këram mm-hmm. di filtre entrée ak sortie yi amul lenn lu ko justifier maanaam daf ci am ay dogal yoo xamante ni justice moo war a rendre mm-hmm. joxe ko yenn yi provocation lay nuru kenn xamul lu muy nuru parce que amul décision de justice bu ne nañ ko résidence surveillée amul décision de justice bu ko teree génn au mm. contraire dafa am procès waroon dem wuy ji procès bi donc li ñu waroon def mooy yombalal ko pour que mu génn dem ci procès bi mm. mais pas ñu teg ay mesures yoo xamante peut-être mën naa gàllankoor li nga xamante moom mooy dem bi ak dikk bi wax dëgg yàlla mm-hmm. la liberté de circulation mm-hmm. dafa nekk loo xamante ne Sénégal violation droit euh, loi yi dafa flagrant ba nga xamante ne dama lay jox benn procédure boo xamante ne boo demee fële ca. Euh, hmm. tribunal bu Kaolack. waaw ñu gaawantu foofu. ñu voilà tribunal bu Kaolack. Hmm. Hmm. boo xamante ne foofu noonu police bi ne ko non non non fii ak pareeguñ suñu enquête doo génn le territoire de Kaolack. procureur nee na ñu notifier la résidence surveillée. Ah. mais vous vous rendez compte c'est-à-dire de violation droit de l'homme yi. ni mu toll Sénégal depuis quand le police am pouvoir astreindre résidence surveillée. moo jaaxal ñëpp. procureur mën euh, a nit résidence surveillée police police. Hmm. ñu ne la yow fii ba enquête bi di jeex doo génn Kaolack dóor la résidence surveillée ba pare jox la ay kayit nag pour nga signer. c'est léegi juristes yi ñu ngi may dégg léegi wax leen ma ndax police am na pouvoir dóor nit résidence surveillée wala justice moo war a décider kii dañ koy mettre sur résidence surveillée. c'est grave c'est-à-dire que violation droit c'est tellement flagrant que te kenn du ci wax nag. Mhm. kenn du ci wax dañ ci sëgg di ci gëm. léegi nag yow mi nga xamante ne yow la ñuy violer say droit. Mhm. bis boo décidé ni da ngay yuuxu pour bañ ñu rend la. Mhm. nga gis nag ku nekk commencé di wax nag non bul fiñee fitna nangam sangam nangam mais tant que tant que ki yor yat bi mi ngi yor di dóore kenn du ko lijjanti personne kenn du wax. ñii àtte dañuy sot Sénégal moom mi ngi noonu rek. <laughs> loo ci dañuy bàyyi ba ñu gis ki ñu faral ñu ñu ñu jàpp di dóor ñu ñëw téye loxo yi kii dóor ne la bàyyi li ngay dóoree. mi ngi waaye tànk keneen ki ñu faral mi ngi jàpp di dóor dañ naan waaw. na doon ni mu koy dooree baax na ko yàlla waxee ci alxuraan rek <laughs> mm. yoonu njub leer na mm. yoonu safaan leer na léegi nag nit ki nag moom yàlla jox na la xel yow yaa war a tànn xool nooy doxalee mm. li loi bi wax leer na fàttali naa ko mm-hmm. dossier yu mel nii yi fi jot a jaar wax naa leen lu justice doxalee ak moom mm-hmm. léegi nag mm-hmm. ñoom ñooy xool rek ñoom ñooy def choix rek entre mhm. respecter loi yi ak mhm. règlement yi ak mhm. jurisprudence yi jàmm ne ñooy ci réew mi wala ñàkk respecter loolu investisseurs yi daw suñu réew mi ndaw yu jug ni dañuy fippu indi résistance. Mhm. ñoom ñooy le choix est vite fait ñi léegi ñoom ñoom ñooy choisir rek. Mhm. parce que askan moom am na foo xamante bu ñu fa tolloon nit moom. Mhm. mala sax loo ko dàq dàq dàq bu demee ba sës miir bi moom bu amul fa ma jëm sa kaw la jëm. donc foofu la war a éviter éviter sénégalais na man jàpp naa ne fi ñu toll nii. sénégalais yi pousse nañ leen a pousse pousse pousse ba sës leen ci miir bi. bu ñu forcé baara am na lu demee rek dañuy ëlbatiku pour ñaan ñaanuñ ko yàlla te nekkul loo xamante ne wax dëgg yàlla c'est c'est souhaitable. wallaay dëgg wér nga wax mala sax boo ko toppee ba mu sës ci mur bi dalay mujjee song wax malaa nag nit ak noppam donc nañu saafonte rek une minute bi ñu desee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk yi ñuy topp ba léegi